Ali Imran TV ñu leen yaay ci mbirum àdduna Bye. Pour que chaque repas soit un moment de plaisir, l'Oboumam Diara Bousso est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans. Situé au kilomètre 18 route de Rufisque à Dakar, l'Oboumam Diara Bousso est une société 100% sénégalaise spécialisée dans l'enfûtage et la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de 200 collaborateurs, guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de l'Obogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Nous avons conçu cette bouteille en respectant les normes de sécurité en la matière. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de quatre sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Oboumam Diallo Bousso est ainsi le numéro 1 au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable. Et parce que la sécurité est primordiale pour nous, nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobo Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà faisant ainsi de Lobo Mame Diarra Bousso un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Lobo Mame Diarra Bousso ne cesse d'innover, de voir plus loin. Le Dara Ali Imran, sous la directive de Oustaz Alioune organise sa 17e édition de Dara Vacances, suivie de la deuxième édition de la colonie de vacances, qui se tiendra cette année à Toubab Dialaw pour les enfants de 6 à 12 ans, garçons et filles, à partir du 15 juillet au 11 septembre 2022. Avec un encadrement de qualité composé de professionnels aguerris, la colonie se fixe comme objectif d'améliorer les compétences sociales, la confiance en soi, l'esprit communautaire, la sensibilisation l'éducation culturelle, mais aussi et surtout améliorer le niveau des enfants pour l'éducation islamique. Nous croyons que ces compétences sont essentielles pour nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens du monde impliqués, chacun équipé d'outils et de valeurs pour apporter une contribution profonde et durable à la société. Pour plus d'infos, contactez le 77 438 49 94 77 586 6 77 ou le 77 531 09 79 28. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوته yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yaay ci mbirum àdduna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 لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفئ جذوة الأذى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bokk ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Ali Imran TV ci seen jotaay mu tuddee siira ngeen koy am ay bis jotti waxtu wi dellu si na di leen ko defal si siira ay jotaay la yoo xam ne day jàng dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla def noo sas nu topp ko moo tax mag ñi bind ndax nu xam ko ndax xam ko dana danañu jural ñu sopp ko te sopp ko mën naa jural ñu topp ko te ku ko topp teexe àdduna teexe àlaxir ñu ngi tolloon ci di diggante bu am solo mooy bim mu ganee àdduna ba niñ ko yónni mu nekk ab yónent bi mu ganee àdduna ba niñ ko yónni mu nekk ab yónent xew-xew yu am solo yooyu ci yooyu la ñu nekk salawaatullahi salaamu alayhi xew-xew yu am solo yooyu nga xam ne ngi tàmbalee ci kere ba mu ganee àdduna jëm ci biñ ko yónnee mu nekk ab yonent gane na àdduna fekku fi baayam maamam la fi fekk Abdul Muttalib eh, Abdul Muttalib tànnal ko turu baax boobu moo tax daana wax ci hadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali mu ne man de yàlla musal na ma ci saaga waa Quraysh ñu ne ha mu ne ndax Quraysh ku baaxut la ñuy saaga te man baax na waaw <laughs> xam nga loolu ndeke adduna amoon na ay saagakat ni adduna amee tey ay saagakat waaye moom alayhi salaatu salaam mu jàpp ne kii saaga kii saaga moom saagawu ko moom waaw nee na ñoom muzammim la ñuy saaga te moom Muhammad la tul ku baaxut la gaa yi saaga te moom ku baax la moo tax saaga du ko taq lu am solo la kon Quraysh daanañu ko saaga waaw waaye moom saaga ya daaw ko yëgal yaramam ndax jàpp na ne moom ku baax la te it te ñoom ku baaxul la ñuy saaga te saaga baaxul loolu hadis la boo xam ne bi Abu Hurayrata moo ko nettali hadis la bu wér ah Buxaari génn na ko ca jukkib juróom-benneel ca xatum 433 435 eh, kon 436 ca la indi hadis boobu mbokk yi salawaatullahi salaamu alayhi daal di gane àdduna te fekk ko fi baayam te gone gu ñëw fekk ko fi baayam yatim la ko arab di wax wolof naan ko jirim waaw jirim mooy gone gu ñëw fekk ko fi baayam yaayam la fi fekk te moom mënagul dara penc mi tudde ko jirim mu yatim dégg nga li alxuraan wax ci yatim wala yaxudu ala taamil miskin dégg nga li wax ci yatim bari na lool ci alxuraan ay barab yoo xam ne bi wax na ci ci wàllu jirim kon jirim mooy koo xam ne fekk fi bàyyam suñu Cheikh Ahmad Tidiane Gaye nag daana wax ca xasidaam ga jirim du xëy ñàkk moos sa bàyyi bi baax bi la jur feeg yaa ngi am waa ju baax ju mat taxaw di la yar waaw nee na nit mën naa juddu fekk fi bàyyam waaye taxul mu nekk jirim hmm, waaw nit mën naa juddu fi bàyyam te nekk jirim mune ne ku am baay bu mat bu taxaw di la yar jirimatoo mu ne na am waajur nag ba noppi njirim dana am waajur ba noppi njirim mu wu mel noonu dee moo gën fi des moo gën mu des fi jur kon alayhi salaatu wasalaam ñëw na àdduna fekk baayam wan ginnaaw àdduna waaw lu ma di xew bàyyim nekku fi yaay ma fi nekk danay xew léeg-léeg gis liir bu juddu bàyyim nekku fi xam na bu doon aadee Sénégal yu jàll Muhammad Abdallah lañ koy tuddee <laughs> parce que ñun ci sunu aada bu bàyyi faatoo doom ñëw ginnaawam ñu jox ko ci sunu aada waaye moom ñëw na àdduna juyoog baayam baayam ma nga jëm mi ngi jëm si àdduna mi ngi jëm si àdduna bàyyi ma nga jëm àllaaxira bàyyam tudd abdallah moom maamam tudde ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne xoola rek bu doon ñun sunu aada baa ji làqu na doom ji judd na bu doon ñun abdallah lañ koy tudde waaw ngeen baal ma yéen ñiñ defal noonu waaw waaye su fekkoon ne abdallah judd na wala Abdullah nekk na fi ginnaaw bi yonent bi juddoo lu ngeen yaakaar ne lii Muhammad am lan la ko ci Abdullah di defal lu ngeen ci yaakaar bu fi nekkoon ndax mën na ko defal lu raw lii ko yàlla defal ah déedéet mënu ko lu ngeen jàpp na ko moom la koy defal bàyyi dee ngi fi bàyyi ñu ngi fi seen doom yaa ngi fi dugal école dugal jardin dugal daara yu la ñu defal seen doom yi te léeg-léeg ñu def ko du mel nañ ko bëgge léeg-léeg ñu bañ koo def leneen ñëw ndax baay ji ngeen yaakaar ne mënoon naa ma yonent bi nubbu wa yaakaaruma ko mënu ko koo may bu ko dugaleen école dugal ko daara lu mu ko mën a def def ko bi yonent moom bàyyi mënu ko mukk kon bàyyi dara la nag bàyyi dara la ndax euh, cosaan la jiwu la wéeruwaay la waaye nag alei salatu salaam ñàkk teewul mu nekk lim nekk te su bàyyam nekkul munu koo defal lenn ci li mu nekk alam yajidka yatiman fa aawa mu ne ko axakay ah wajadaka dalan fa hada mu ne ko axakay ah wajadaka aayilan fa axna mu ne ko ah kay yooyu yëpp moo ko defal moo ko defal moo tax ak yónente dee su ko fàggu dee su ko fàggal fàggul nit baay ju baax ko may nit baay ju teewe sa dund yar la du ko may nit baay ji mënu koo may doom ji kon bu fekkee baajaan jaan fa doon dund te yónente ba nekk fa ñu bokk fa nekk munta tax mu mu may ko nubuwa la muy man rek mooy jéem a yar jéem kopp-koppal jéem a dalal jàngat ñoom seen yooyu mbokk yi Yaaxub ma nga doon dund Yuusufa di dund Yuusufa di doom ji mu di bàyyi ji bëgg lool doom ji ñu bokk di ñaar mu ndax da ngeen def na Yaaqub moo jox nubuwa Yuusufa déedéet déedéet bëgg na ko lool waaye jox def ko yonent bëgg na ko lool waaye boo moytul ay sañ-sañam su sotti woon du dem Égypte waaye sunu borom laqar cee ko ca ginnaaw baay ja fanaana ko ci teen ba ay fan Yuusufa jóge ca teen ba dem Égypte nekk fa ay at ba mu àggee Égypte dugg ca kaso ba am fa ay at génne kaso dem pale loolu bàyyi jaa ngi dund waaye bàyyi mënlu ko kon ñàkk dund bàyyu sallallahu alayhi du def jeexantal ca dundu alayhi salaatu salaam te kere bi Yaaxub di ñàkk doom ji ñu jële ko ci ay loxoom sànni ca teen ba booba ma nga woon doom jaa nga fa yeneen doom yi ña nga waaye woon waaye taxawaayu Yaaqub muntoon a diggante Yuusufa ak natt yo nga xam ne moom lañ ko teg ba yóbbu ko ca terrain ba sànni ko ca njëgg ma for ko dem ak moom mag Misra jaay ko buur ba jënd ko ndekete buur bi ab yonent lay jënd ka ko doon jaay moo tax da ko jaay ba noppi toog fa ne du ma dem fenn fii laay toog xaar ba dee fekk ma fi ma dee door a génn àdduna mbokk yi lu ma doon suñ bindu ñaar fukkeel ak ñaar ci seen jotaay di siira ñu toll ci juddu bi yonent bi alayhi salaatu salaam jëm ca bañ koy yónni yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen def jàmm ci kër gii di Al Imran TV def ci kër yu ko wër yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان ودع الذنوب كبيرها وصغيرها فالذنب يطفئ جذوة الأذى J'ai beau d'un dit, ok, coque, so, so, j'arrête, grossi, bien. do Pour que chaque repas soit un moment de plaisir, l'Oboumam Diara Bousso est au cœur des foyers sénégalais depuis plus de 20 ans. Situé au kilomètre 18 route de Rufisque à Dakar, l'Oboumam Diara Bousso est une société sénégalaise spécialisée dans l'enfûtage et la distribution de gaz butane. C'est une équipe de plus de collaborateurs, guidés par une même volonté, participer activement au développement du Sénégal. Ces équipes s'appuient sur des valeurs familiales partagées et une expérience professionnelle forte, faisant de l'Obogaz la marque préférée des Sénégalais. Le souci de chacun de nos collaborateurs est l'accessibilité de nos produits à tous et partout. Notre leadership sur le butane, nous le devons aux ménages sénégalais qui ne le leader incontesté du marché du gaz, notamment de la 9 kg. Nous avons conçu cette bouteille en respectant les normes de sécurité en la matière. Cette invention est déposée auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Assurément tournée vers l'avenir, nous maîtrisons toute la chaîne d'approvisionnement du gaz, allant de l'importation à la distribution sur le marché national et à la réexportation. Notre fibre patriotique, notre recherche et notre souci de sécurisation de l'approvisionnement du pays en gaz butane ont motivé la construction de quatre sphères sous talus d'une capacité totale de 6200 tonnes. L'Oboumam Diallo Bousso est ainsi le numéro au Sénégal et dans la sous-région en stockage conforme de gaz butane. Nos lignes de production comportent 7 carrousels, composés chacun de 12 bascules automatiques et de 5 autres bascules manuelles, soit une capacité de production ce qui nous permet d'approvisionner le marché sénégalais en toute fiabilité. Le gaz butane reste un produit inflammable. Et parce que la sécurité est primordiale pour nous, nous avons mis en place une équipe de sécurité formée et composée d'officiers de sapeurs-pompiers, de professionnels du butane et de collaborateurs. Des simulations sont régulièrement effectuées dans l'enceinte du centre afin d'assurer la sécurité de nos travailleurs, mais également Nous diversifions aussi nos activités pour devenir un acteur majeur des produits pétroliers et avons lancé en 2016 notre première station-service sous la marque Lobo Oil, avec la volonté d'innover dans la distribution d'hydrocarbures à l'instar du butane. Modernité, expertise, innovation. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour répondre aux besoins de toute la société sénégalaise. Notre professionnalisme nous a valu la confiance de nombreuses entreprises au-delà faisant ainsi de Lobou Mame un acteur incontournable de la sous-région. Demain, notre ambition est de renforcer notre présence en Afrique de l'Ouest pour conquérir de nouveaux marchés. Pour continuer à vous accompagner partout, et parce que vous méritez toujours mieux, Lobou Mame ne cesse d'innover, de voir plus loin. Le Dara Ali Imran, sous la directive de Oustaz Alioune Sall, organise sa 17e édition de Dara Vacances, suivie de la deuxième édition de la colonie de vacances qui se tiendra cette année à Toubab Dialaw pour les enfants de 6 à 12 ans, garçons et filles à partir du 15 juillet au septembre Avec un encadrement de qualité composé de professionnels aguerris, la colonie se fixe comme objectif d'améliorer les compétences sociales, la confiance en soi, l'esprit communautaire, l'automotivation, la sensibilisation l'éducation culturelle, mais aussi et surtout améliorer le niveau des enfants pour l'éducation islamique. Nous croyons que ces compétences sont essentielles pour nos enfants pour qu'ils deviennent des citoyens du monde impliqués, chacun équipé d'outils et de valeurs pour apporter une contribution profonde et durable à la société. Pour plus d'infos, contactez le 77 438 49 94 77 586 6 77 ou le 77 531 09 9 28 الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلا yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna